tey gisuma dara ci yëngatoom ci wàllu APR à part ndar bu mu nekk la défendre boppam nekk fa maire te loolu am na ci droit parce que doomu ndar la. Mhm. mais ci biir parti bi gisuma benn yëngu-yëngu boo xamante ni wala benn engagement boo xamante ni Mansour Faye jëloon na ko ci biir parti bi quand bañ koy mhm. dénk parti APR man moom xalaatuma ñi ko xalaat ñoom la engagé. Mhm. d'accord Tange alors euh, ñu demaat ci euh, beneen euh, point bu essentiel laataa ñu jeexal parce ñu gis libre <laughs> d'accord alors ñu gis ne euh, euh, arrestation wu Amath Suzanne Camara donc euh, depuis moom muy Bah Diakhaté ainsi de suite gis nañu post bi Abdou Mbow def mu mel ni tey ñu bëri jàpp nañ ne tey kii di Bah sax peut-être mun nañ wax comme ñoom dañ koy waxee otage politique la selon ñoom mais tey le cas de Amath gis nañu ne ñu bëri sax cautionné wuñu kàddu yi mu wax waaye nee nañ mënoos nañ koo bañ a jàpp parce que peut-être jàpp nañ ni Amath Suzanne Camara nit la boo xam ne peut-être bañ ko xamee ba tey façon bi lay waxee nii lay doxalee mais quand même peut-être kàddu yi moo tegginewul looloo tax procureur autosaisir d'accord posé nga benn question boo xamante ni dafa poser débat mhm. sur place publique bi mhm. man Tange Tandian ku ma xam je suis né républicain mhm. j'ai grandi républicain et je continuerai d'être républicain. Mm-hmm. cest dire que ku ma fekk ci ci logique boobu da nga ma ci fekk si mais du mm-hmm. question dama lay défendre. Mm-hmm. parce que li ma gëm mooy une république. li ma gëm mooy patriotisme li ma gëm mooy suñu institution. dañu rédiger suñu réew ci institution. tënk ko ci charte boo xamante ni mooy république ñu am régime présidentiel. ñu tëgg constitution. bi fal président de la république may ko suffrage universel direct ba noppi may ko mu war a jurer ci kanamu conseil constitutionnel pour que mu jël fonction pour une durée de cinq ans ci biir loolu constitution bi may ko lenn loo xamante moo tudd article quatre-vingt muy l' état muy respect institution bi lañ ko jagleel. ni fa Bassirou Diomaye Faye nekkee tey démbu Macky Sall moo fa nekkoon bërki hmm. démbu Ablaye Wade bërkaat démbu Abdou Diouf bërkaat démbu Senghor xëy na beneen yoon beneen Massamba moo fay nekk kon dañuy jagleel kooku li nga xamante ni mooy respect dafa mel ni père de famille chef de hmm. famille ci biir këram dañ ko war a jox cër hmm. kaddu yi Amath Suzanne Camara yëkkati teg ko ci kaw kii nga xamante ni mooy institution bi di président Bassirou Diomaye Faye man Tange Tandian rafetluwuma ko man rafetluwuma ko parce que ak nu mu mënte demee. Mhm. même su ko defee dañuy dellu siwaat su suñu culture muy Sénégal dañu am suñu culture am suñu valeur. Mhm. xëy na kàddu boobu koo ko wax sax du jàppee ni da nga ko wax waxoo dëgg mais day jàpp ni ko saaga. Mhm. xëy na ci dëkku nasaraan yi nag du fa dara. parce que tey da ngay dem Europe man j'ai mon fils boo nekk fële. parfois xam nga fii mën nga nax sa doom nga ne ko kaay ma yónni la marché kaay ma yónni la boutique sama doom dama ko dama taxaw ma ne ko viens je te fais ça après bu ñëw ma ne ko non je mu ne ma papa tu as menti <laughs> papa tu mooy da fen directement mais du dara ci ñoom mm-hmm. tey tu vois dans des débats télévisés à l'international aux États-Unis ñu ne le président a du dara mais mm-hmm. tey baat bi fii Sénégal ñoom ñoo ko mooñe seen bopp lii Sénégal suñu culture de culture France du culture occidentaux yi mm-hmm. donc baat boobu man rafetlu ma ko ni ma ko doon bañee démb ci leaderu Pastef bi mu koy teg ci kaw ndoddu di ko naan ay Macky Sall daf ko fay mu koy défendre. Mhm. non non non parce que je suis un républicain sama institution tey suñ ko bafoué ci benn mhm. sénégalais su ma génnee suba beneen waaye su bafoué sama institution du ma ko wax dara. Mhm. kon noonu laa koy ñaawle ci Ahmed Suzanne Camara. mais nag dafa am benn mais. ok mais rek moo ci nekk. offense boobu tudd offense au chef de l'État. dama toog fii ci Sénégal. dégg ki nga xamante ni tey mooy président de la république. bokk ci parti muy PASTEF ki ko jiite di premier ministre am. taxaw publiquement ne képp koo xamante ne munoo accepter critique mënoo mhm. doon chef de famille mënoo doon chef de parti ni président de la république mhm. lii di offense au chef de l' dañ ko war a dindi si suñu constitution mhm. moom nee na dañ koy dindi ndaxte képp kuy président lu waay neex wax la moom moo doon tey premier ministre te partem boobu moo yóbbu président Bassirou Diomaye Faye au pouvoir mhm. ma dégg tey ci Alioune Tine nee na benn anachronie bu nekk ci suñu constitution tey mooy offense au chef l' état ma dégg ci Sidi Gassama bi nga xamante ne moo nekk société civile nee na voilà nee na lii di offense au chef d' état dañ ko war a trier. su suñu constitution maanaam seppi. constitution bi moom boo bëggee dégg. voilà li ñu article yi ñu war a tëggaat dafa bari. non ci boobu rek la a mm-hmm. ñoom waroon nañ leen dégg ñu wax. Mm-hmm. ndaxte bërki démb bi ñu jàppee le président de la République Bassirou Diomaye pour outrage à la magistrature. Mm-hmm. moom Alioune dafa génn wax moom Seydi Gassama dafa génn wax. kon tey ak nu mu mënte demee parti bu ñu mën a bokk même su dee man d'accordu ma dañu war a génn delloowaat kàddu yooyu ñu waxoon pour ñu insister ñi génnee ko tey nag lenn rek laa jàpp muy benn kaddu boo xamante ni Ahmed Suzanne Camara def na ko kan moo jàpp Ahmed Suzanne Camara mooy procureur bi jàppoon président Bassirou Diomaye Faye mhm. mooy procureur bi jàppoon premier ministre mhm. procureur boobu jàppoon leen ñoom dañu taxaw ci plateau yi avec les activistes les mouvements citoyens de Y'en a marre ba ci kilifa dégg naa ko ci seen plateau bi ne président Macky procureur u moo jàppalu kii di président tey di Diomaye Faye ak premier di Camara kon donc nañ jàpp procureur u président Bassirou Diomaye Faye ak premier ministre am jàppalu Ahmed Suzanne Camara loolu rek laay mën a jàpp jusqu'à preuve du contraire parce que démb dañu ne woon ci régime u Macky la nekkoon li Macky régime la nekk jàppalu na Ahmed Suzanne Camara sur les mêmes faits mais dañ fi gis ay propos yu gën a garaaw yooyu moom mii di premier ministre tey di ku dooleel offense au chef de l'État dafa taxaw ne président Macky Sall waxul dëgg du waxkatu dëgg ay ministre du ñu wax dëgg du ñu waxkatu dëgg mhm. ay responsable fekk ko ci est lu mu nekkoon député moo tax non non boobu moom bi mu koy wax du député d'accord ñi gis député bi di Guy Marius Sagna taxaw ci kanamu assemblée nationale ne président Macky Sall du waxkatu dëgg du waxkatu dëgg du waxkatu dëgg moo comploté kii di premier ministre ak Adji pour xañ ko candidature am mhm. te Guy Marius Sagna lu mu wax noonu xam na ni ci kaw ba ci suuf du dëgg mu boole ñaar nag mhm. muy immunité parlementaire am ak irresponsabilité am mhm. parce qu'il était responsable du question ni ko immunité parlementaire may na ma lii rek su ma ko waxee dara du ma ci topp dama koy wax lan la parfois sa xol may la yenn saa yi nga def dara mais nga xalaat sa xel nga ne ma noonu jaru ko du ko def donc face à ces irresponsabilités donc dafa grave bi ci toppaat ñi gis benn waay bu taxaw saaga président de la république pour la première fois offense lañ doon wax mais saaga ndey ñu ngi koy soog dégg ci Azoura mhm. dara fekk ko ci. dafa saaga le président de la république Azoura Fall fu mu bokk ci seen parti lu tax procureur autosaisirul bu. bu Azoura Fall saga boobu président jëlagul fonction. le président de la république entre en fonction. le jour de la proclamation définitive des résultats jusqu'à la fin du de son successeur élection yi le 24 la am. le 24. Mm-hmm. maanaam conseil constitutionnel kañ la programme résultat yi vendredi. Mm-hmm. jour boobu la Bassirou Diomaye Faye nekk président la République te bi muy saaga c' après vendredi c' était le dimanche. Mm-hmm. veillu. prêtement de bi. donc il a insulté un président de la république. le procureur ne s'est pas autosaisi. et cette personne boobu dafa taxaw ñu gis ko ak premier ministre mu koy gunge di ànd ak moom. léegi yow jàpp ni procureur lu tax autosaisi. waaw foofu laay ñëw ñu gisaat ko encore ci jour passation de service mu taxaw di acharné ci kaw ay forces de l'ordre moom sa simple Azora Fall. Hmm. accompagné par le premier ministre. sa même Azora Fall marchu Euh, parcelle mu taxaw téye drapeau bi donc ñoom li ñu doon bañ ci Macky Sall ils sont en train de faire pire làq doom dóor doom la. Mhm. justice bi tuddeewul day ji seex ñu leen ci woon gis lenn nag laa d' accord. Mhm. tey procureur dafay autosaisiru ci kaw ay supérieur dafay jaar ci ministre de la justice ministre de la justice jaar ci premier ministre premier ministre jaar ci président de la république. Mhm. président la république lu mu bëgg du am mënoon na ko ne ah def nga sa liggéey procureur. yow def nga sa liggéey mais bàyyil Ahmed Suzanne Camara mu ñibbi këram. Mhm. parce que man mi bi ma nekkee opposition dama jàpp ni que offense au chef d'état dañ ko war a dindi ci constitution. man mhm. dama war a nangu critique nangu lépp. te Ahmed Suzanne Camara lu mu tontu lu mu wax noonu Abdou Mbow wax na ko parce que bi mu waxee Abdou Mbow dafa def point de presse ne président li mu wax. fekkul dara ci keesu état yi demeewul noonu parce que nii ak nii la jéegi jóob dellu siwaat ci plateau taxaw ne li mu wax amul nii ak nii la. mais Abdou Mbow député la bu ko fàtte. waaw mais waxee ko ci pupitre bi. Ah, ci point de presse la ko waxee. député assemblée nationale moo la protégé. gisoo pupitre boobu même ministre du fa dugg. immunité bi mi ngi am biir assemblée nationale. parce que dañ ne député lenn moo ko dul sauvé ñu jàpp ko en flagrant délit. flagrant délit bokk na ci loolu. tey kii di Abdoulaye Seydou Sow toog na wax ko ne président li mu wax fekkul dara ci keesu état yi noonu. dafa jaawle trésorerie ak budget. donc je crois que tey Ahmed Suzanne Camara li mu def man ànduma ci. dama koy ñaawlu tey su doon si reñu Khalifa Sall ñu jàpp ko du ma taxaw benn yoon mën nañ ko bàyyi na yoon def liggéeyam parce que Khalifa Sall musul contre offense au chef de l'état Idrissa Seck pareil ñeneen mais ñoom ñi mu fekk si seen dañ doon xeex li nga xamante ni mooy offense au chef d'état bi ñu daanee Ahmed Suzanne Camara ñoom musuñu ko nangu te dañ ko bëggoon dindi yàlla jox cër boobu nag je crois que waroon na bokk si assise de la justice yi muy première loi boo xamante ni ko Sidi Gassama bëggee ñu seppi ko si suñu constitution teg na le hmm. pour que démocratie mën a régner on a vu un recul démocratique par rapport à l'arrestation de Ahmed Suzanne Camara face à ce régime mais ànduma ak Ahmed Suzanne Camara je hmm. alors Tange euh, ma bëggoon aussi nga apporter ay quelques précisions ci euh, benn euh, dama naan est information la boo xam ne ñun ñëpp dañu xëy rek gis ko ci réseaux sociaux yi waaye yaakaar naa tunga ne du teew ñuy nataal muy euh, somu xaalis yoo xam ne ñii nee nañ convention la ñii ne aide à la presse waaye yaakaar naa lu mun ti xew bu ñu woowee la personne concernée moom dina